wa petit train de banlieue amal nañ talata bi ben journée ouverte cleaning day du chemin de fer ci diwaanu rifisque ci teewaayu kilifa yu bari ci bobu la ndaje directeur général bi de Omar Boun Khattab Sylla di ñu xamal ni seen activité yi du yem rek ci seen entreprise waye dina law ci gox yu bari ci diwaanu Dakar wa ndaje bi liko ko moy euh, dañu gis euh, ne njiitu rew mi dafa am lo xam da ci encourager Sénégalais yi joxe ci ndigal ba paré jitu ci moy set set nag euh, c'est entreprises, nangu neex euh, entreprise set comme euh, développement euh, gis nañ ne set dafa bok seen composante set diine da ko da ko da ko da ko aussi donc euh, avons un plan pour lépp lu yor ak lu wër ñu non seulement mu mais ñu ko ba paré garab agent bu am garab a des dal nuñ ko Nous eh, nañ dana am solo. non day dem euh, déjà wax nañ service d'hygiène wax ko mairie bi trois sites dans Rufisk. yo xamné inshallah nettoyer li ci bëgg a ànd ak aussi ministère bi nga xam ne waa abi waa environnement la ñu yooyu euh, ñi ko président dénk daal. Euh, du ñu yem Rufisque kese am na ay sites yu ñu identifié Dakar yoo xam ne ñun incha allah danañ dem takku waxtaan ak ñu war a waxtaan dem nettoyer ko ba mu set ji fa ay garab. ba pare wut ay moyens yoo xam ne mooy continuer parce que bëgg nañ daal suñu réew gën a rafet comme ni ko président de la république digle. ndem bu fekkee ñaari weer a ngi nii seen liggéey am ab ndegandiku ndax projet bu train express régional seen njiit lii moo ngi ci indi ay leeral. waaw xam nga àdduna loo gis ay day am moment yu muy dox ak moment yoo xam ne day xaw a taxaw wala mu wàññeeku PTB taxawul ay activité moo amoon tuuti nëgëndiku rek. li ko waral mooy ay travaux yu am dans le cadre du projet TER muy projet boo xam ne farata la c'est un projet prioritaire petit train de banlieue SA di ci def euh, akulaay taalaam depuis mu commencé pour mu réussir.

di jàmm di njariñu Sénégal. Momar Sall di secrétaire général des travailleurs di dalal xelu liggéeykat yi te di leen gën a ñaax. de jour en jour mbir mi day gën a leer léegi nag li ci am mooy nit nañu gëm yàlla te wóolante man de gëm naa ni ñi fi nekk ñëpp surtout moom mi nga xam ne moo ñu jiite bu naree xam ni lu ndaw ñëw na pour lor ñu ëllëg il va nous aviser te xam na ne am nañu syndicat boo xam ne ak ñoo xam ne am nañu fulla ak fayda lépp suñu warugar dinañ ko défendre. ndax ba ñuy dem keroog ministère bi on était avec avec notre SG national qu'est-ce que le SG le le ministre lui a dit que maa ngi doog gis lu mel nii. kon dama bëgg nag ñu dalal suñu xel yombalal ko liggéey bi moom mooy ñun de lépp lum ñu wan mu xam ne tey jiit lii moom na bëggee PTB man jàpp naa war nañ ci mën a ak moom. ginnaaw bi mu rafetlo bobule initiative wa service d'hygiène ci kàddu yi Mamadou Thiam fay pare nañ ngir gungé wa PTB. nous on est prêt à vous accompagner lo xam ne ci yëngu rek ñun and ànd ak yéen dégg naa sànq nga wax ne ba suñu partenariat yéen ak ñun nous aussi on est prêt nous sommes prêts à vous accompagner te lii nga aussi je suis très fier je suis très content et aussi sama autorité aussi diñ ko C'est seen programme Tambali, talata ñaar fukki fan ak Ben, jëm aljuma ñaar fukki fan ak ñeent xol yu bëri tooy fa ndem si Yalla, Lamine Ndiaye.